salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral nu ngi sant yàlla di leen bëgge yéen déglukat yi émission yoonu njub yépp mbokk yi dellu si nanu fas yéene jàngandoog yéen tey beneen léebu xam ngeen ne wolof njaay dafay wax naan fàggu moo gën faju moo waral nu bëgg a gëstu ci léebu fukki janq ya fukki janq yooyu yéesu nettali woon seen mbir lanu bëgg a seet ba gis la xewoon ak ñoom ak lan lanu ca mën a jànge mbind mi nee na nguuru yàlla aji kawe ji dina mel ni fukki janq ñu fab seeni làmp génn gàttandu ji boroom séet ba fekk juróom ca janq ya di ñu am xel juróom ya ca des ñàkk xel ñi ñàkk xel fab nañu seeni làmp waaye fabaale wu diwlin waaye ñi am xel ñoom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 yeewu leen nag ndaxte leen bés ba mbaa waxtu wa mbokki déglukat yi dégg ngeen li dal fukki janq yooyu yi ba ñu demee ca seen ceetuk xarit xamoon nañu ne boroom seet bi dina guddee ñëw waaye li leen umpoon mooy waxtu wa boroom seet bi nar a agsi noonu juróom ña fàggu petorol bu doy ngir seeni làmp mën a tàkk guddi gépp su ko laajee waaye juróom ña ca des ñoom fàgguwuñu woon petarol bu doy war ngeen xam ne ca jamono yooyu yéesu nettali woon léebu bi ci aada yawut yi bu ceet mësaana am xariti ku jigéen ki dañu daan ñëw wettalisi ko te ña daan gàttandu ji ku góor ki bu jël si soxnaam ci xarit yu jigéen yooyu lañu bokk loolu nag defe naa sax jafewul a dégg ci nun fii ndax am nanu fi aada yu ni xaw a mel kon sunuy faram-fànce léebu bii danuy gis ne boroom séet bi yeesu lay misaal xam ngeen ne fi mu ne nii borom bi yeesoo nga toog ca ndeyjooru yàlla te foofa lay jóge ñëwaat fii noonu la ka malaaka ya waxe woon taalibe ya taxawoon di xool jàkk asamaan sa keroog ba mu yéegaat jëm asamaan ñu ne leen yéen waa galile lu tax ngeen taxaw di xool ci asamaan si yéesu male ñu jële ci seen biir yéega ko asamaan dina dellusi ci ni ngeen ko gise muy dem asamaan bu yéesu ñëwaatee fii nag dafay jël si séetam bi di jàngu bi maanaam mbooloom ñi gëm kirist ci àddina sépp ci loolu nag am na ñu ñàkk dégg li mbind mi di jàngale fii ñu naan séet bi dafay wone ne bu yeesu dellusee ci àddina dina jël soxna te am ci doom ñooñu dégguñu li mbind mu sell mi wax ci mbir moomu li ñu ci war a dégg mooy li yéesu waxoon ay taalibeem naan leen maa ngi dem defaral leen fa ngeen di dëkk te su ma leen defaralee bërëb booba ba noppi dinaa dellusi yóbbaale leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam loolu mbóot la moo xam ne kàddug yàlla leeral na ko bi mu naan yéen nag góor ñi na ku nekk bëgg jabaram ni kirist bëgge mbooloo mi ba joxe bakkanam ndax moom ngir sellal ko ak kàddoom ba mu laab ni ku sangu set noonu dina ko jël mu mel ni séet bu ñu waajal di mbooloo mu soloo ndam te gàkkul rasul taqul leneen waaye mu sell te amul sikk loolu ëmb na mboot mu xóot mu jëm ci kirist ak mbooloo mi xare yu ñuy déglu nii lees war a dégg seetu mboote mi di kirist yeesu waaye su amul ñenn ñu déggul wax bi du doon mbetteel gu rëy ci nun ndaxte naka la nit mën a dégg li yàlla bëgg a wax te amul xelum yàlla mbind mi sax wax na ko bi mu naan kan ci nit moo mën a xam yëfi nit xanaa xelum nit mi nekk ci moom rekk ko mën a xam noonu it kenn xamul yëfi yàlla ku dul xelum yàlla nun nag xel mi nu jot jógewul ci àddina waaye yàllaa nu ko sol te loolu nu yàlla may yëgle wunu ko ci ay baat yu soqi ci xam-xamu nit waaye ni ngi koy yëgle ci baat yi soqi ko ci xelum yàlla di tekkantal yëfi xelum yàlla ci ay baat yu munu sol xarit yi ñuy déglu na yàlla rekk am ndam kon ba tey ci mbirum fukki janq yi am na ñu ko dégge ne kàddug yàlla di biibal bi dafay wone ne mënees naa denc soxna yu bare waaye loolu ñàkk dégg aada yawut yi rekk la ñiy wax loolu dañu réere mbir li fi kàddu yàlla bëgg jàngale li fukki janq yi di misaal fii mooy mboolem way gëm kirist yi ci biir jàngu bi nekk ci àddina sépp te ñooñu dees leen di ràññee ci ñaari pàcc ñi nga xam ne dañuy woyoo turu kirist rekk ak ñi ko gëm dëgg te du dund ci anam yu yelloog kuy xaar ñëwaatu yeesu ci loolu kon juróomi janq yu am xel yi ñooy misaal ñi gëm yéesu Kirist te seen dund dëppoo ak dundinu ñuy xaar seen ñëwaatu boroom bi di Yeesu Kirist juróomi janq yu ñàkk xel yi nag ñoom ñoo di misaal ñiy wuyoo turu Kirist rekk fekk duñu ko dund noonu nanu gëstu tuuti ci ñaari kuréeli way gëm yooyu nu tàmbalee ci janq yu am xel yi ñi am xel ba ñuy dem dañu fab seeni làmp fabaale peterol bu doy ci njaq ngir bu la nekk ca seeni làmp jeexee ñu duyaat leen noonu lu boroom seet bi guddee guddee seeni làmp duñu fay mooy misaal ne sunu ngëm ci yéesu dafa war a nekk lu wér bu ko defee xel mu sell mi nu yàlla may mën a def liggéeyam ci sunu dund nit diw wala pétrole bi ñu def ci làmp di tàkke ba làmp bi tàkk di leeral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 fab nañu naam seeni làmp waaye fabaalewuñu petorol bu doy ngir fàggandiku guddeeg borom seet bi noonu ba guddi ge ñu ñàkk petorol li leen dal nag mat naa bàyyi xel ba ñu dawee di jënd petorol borom seet bi ñëw ci seen gannaaw noonu ba ñu wutee petorol ba dellusi mënuñu woon a dugg ca néegu berndeel ba la daloon niti jamonoy nooyin ya dal na leen fàgguwuñu woon defuñu woon ni seeni juróomi moroom ya ca des dañu sàggane woon mbir mu am solo noonu du ñépp ñiy wuyoo turu kirist ñooy jëfe ay ndigalam du ñoom ñépp ñooy dund dundin wu dëppook coobare borom bi juróomi janq yu sàggan yi misaal nañu ñiy wuyoo turu kirist rekk te duñu def lu dul topp seen nafsu benn bés dinañu bëgg a dugg ci nguurug yàlla mu tëleen li ko waral du coxorug yàlla mukk ndaxte yàlla soxorul li ko waral kay moo di yàlla dafa sell te mënula bokk jataay ak dara lu sellul nit ñooñu kàddug yàlla dafa ne dingeen leen xàmmee ci seeni jëf ndax mënees na wate reseñ ci dëdd wala figg ci xaaxaam te garab gu bon doom yu bon lay meññ mënula meññ doom yu neex garab gu dul meññ doom yu neex nag dees na ko gor sànni ca safara loolu keroog bés bu mujj ba lay am kon nag mbokki déglukat yi bi nga xamee ne janq ju sàggan jooju wuti nañu petarool ba dellusi ñu fekk boroom séet ba moom agsi na ba dugg ak ñu am xel ña tëj bunt ba ñu fëgg fëgg ba sonn waaye dara jamonoy dugg weesu woon na ba ñu amee jot xalaatuñu woon ci seeni làmp waaye yow miy déglu wax ji lan nga ci mën a jànge danga war a xam ne tey ji bunt bi ubbeeku na bunt mucc bi ubbiku na ba ne fàng ngir képp ko bëgg mucc ci mbugalu safara ëllëg daldi dugg bunt bi nag du ubbeeku ba faaw nañ ko xam fàttalikul li yeesu wax ci léebu bii ne yeewu leen nag ndaxte xamuleen bés ba mbaa waxtu wa kon tey am nga jotu xalaat ci sa ëllëg am nga jotu dogu tey jii fan nga bëgg a nekk diirub laaxira bunt baa ngi ne ŋàpp di xaar nga dugg ba mucc mel ni juróom ñetti nit ña mucce woon ca mbëndum ndox ma ca jamonoy yonent yàlla nooyin mel ni itam juróomi janq yi duggandoo woon ak boroom séet ba ca biir néegu bernde ba xarit yi mbir yooyu yépp dañuy misaal àjjana ak ña cay tàbbi kon looy xaarati yow miy déglu bul xaar kàddug yàlla nee na tey jii la jamono ju jekk ji tey la bésu mucc bi dëgg la tey la bésu mucc bi ndaxte muñug yàlla kat am na fu mu yem de niti jamonoy nooyin ya yàlla mayoon na leen jot gu doy ngir ñu gëm wante ba ñu lànkee yàlla dafa lu dul xaar waxtu wa mu àppoon jot ba waxtu wa jotee yàlla daldi tëj buntu gaal ga noonu pexe mucc jeex tàkk ca ña bañoon a dugg ca gaalu mucc ga kon sama waay noonu waxante dëgg bés ba dina mel ni keroog ca mbëndum ndox ma kàddug yàlla nee na bés ya jiitu mbënd ma nit ñaa nga doon lekk di naan góor ñaa ngi doon takk jabar tey maye seeni doom ba bés ba nooyin duggee ca gaal ga xalaatuñu woon dara ba keroog ndoxum mbënd ma dikk yóbbu leen noonu lay mel ci ñëwu doomu nit ki bu boobaa nag réccu dina fekk jëf wees ci lu wér fàggu moo gën faju kon yow itam mbaa doo mel ni ñu dëgër bopp ñooña jaaral ci buntu mucc bi yàlla waajal doom aadama yi yeesu nee na man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man ndax gëm nga loolu bés a ngi ñëw yàlla dina tëj bunt bi bu yàlla tëjee nag amul kenn ku am maqaamay tijji fàttalikul ne ba bunt ba tëjee te janq yee jëndi woon petorol agsi dañu fëgg ba sonn waaye kenn ubbiwul boroom seet ba ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax xamuma leen kon sama xarit ngir moytu loolu danga wara nangu ne yàlla daal aji sell la te yow ak man ay bàkkaarkat lanu itam nga nangu ne sa bàkkaar a tax mënoo jege yàlla te loolu moom du yow rekk ndaxte ñépp a ba joteetuñu ndamu yàlla bu loolu wéyee nag nga nangu ne yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem saafaraal na jafe-jafe bi saafaraal na ko ci li mu yoonu yéesu Kirist mu dee ci sa palaas ca bant ba ñu suul ko mu dekk ca ñetteelu fan ba boo gëmee loolu mu nekk ngëm gu wér ci sa xol xamal ne yàlla baal na la say bàkkaar may la xelam mu sell mi te ni ko yéesu mi dul waxantu waxe génn nga ci dee tàbbi ci dund kon nag mbokki déglukat yi ci loolu lanu leen di tàggoo di leen jox dox daje émission bi ñëw ndegam neex na yàlla su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. na leen yàlla barkeel te ngeen déglu bu baax kàddug yàlla giy wax naan yeewu leen nag te jóge ci biir néew yi noonu sàmm leen seen dundin ma ni ñu amul xel waaye ni ñu am xel.